doon jiite grève temps yooyu boo ambulance wala moto tombe mort da ngay fëgg say nopp ñu wax journal ni que jàpp nañ Mbaye Niang syndicaliste à l'aéroport mi ngi ca kaab mu doon événement bu Jurbel nit ñi di wax ba ma xamee sama maam la mu wax sama ca kaso ba ci laa xam ni àddina amul dara lu gën dëkk addu àddina amul dara lu gën ngor àddina amul dara lu gën maandu parce que dafa dem fekk ko après la comprendre ni que sama papa moom problème yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp du doomam du du jabaram du xaritam du syndicat bi mooy yaayam nan lay gisee mbir mi loolu moo nekkoon problèmem sama maam egg ni ko bu fekkee dëggalatee fii deewal fii bul génn de na nga fa dee ñi la wóolu ba indil fi buñ la wóoluwaatee deewal ci lii man ci loolu lañ ma yare man loolu lañ ma yare lu dul dëgg rek du leneen donc loolu laa bëggoon leeral di wax ni que xaalis bi ñu ciy wax maître defe naa dinañ jël disposition yépp pour que huissier bi bu affaire yi génnee rek ñu saisir këram xaalis bi dañuy laaj ñu yokk ko vingt neuf lañ laaj dañuy laaj ñu yokk ko benn dërëm du dugg ci sama njaboot benn dërëm du dugg ci ku ma ku yàlla wax ni dama ko war a dimbali benn dërëm du ci dugg xaalis bi lépp lu ci ñëw dañ ko xaaj ñaari pàcc lii ca ndongo daara ya lii ci victime yi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko créé ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ci ñàkk ci gaañu ak ñi ci lor donc lépp luñ ko mën a yokk rek nañ def la ca war tribunal yokk ko ñu joxe soxla wuñ ci ñaar dërëm moom la ngoram di jar ay daw ñun suñu ngor amul njëg parce que jàpp nañ ni bu ko jaay sax doo ko amaat moom la dignité moom moom lañ mën a jënd ci ay nëbbatu ñun jàpp nañ ni dee moo dee léegi ak sa ngor moo gën dund ci ñàkk ko ñu ngi sant ñëpp di jox kàddu gi maître El Hadj Diouf parce que moom moo gën